asalaamualeykum wa rahmatullah voilà donc euh, ginnaaw bi pression bi yokkoo donc euh, Badio kamara toujours mi ngi ci ay mbiram maanaam ñu ngi ci ay négociations yu avancé ne ñoom dañu bëgg xalaat jéem a xool nu ñu sëmbaxloo bàyyi ñépp ñoo xam ne dañoo def recours bokk léegi loolu daanaka bu ko waxee loolu dina jéem a décourager ñenn ñi ba ñu ne donc nañu rapporter élection yi Euh, pour beneen date non non loolu mënuñu ko def Badio ak ñi ngeen àndal ci conseiller constitutionnel bi encore une fois ñu ngi ñaxtu que le droit soit di parce que bëgguñu benn jafe-jafe boo xam ne dina fekk sénégalais yi ci élection yi élection yi dañu ne na am parce que Macky Sall tiitaange bi ko dal fi mu ne dafa amul benn garantie bu jóge ci Ousmane Sonko jëmale ci boppam ak njabootam donc loolu wax tax na nee nañu ñu ngi jéem lépp lu ñu man di wax ay mbirum sabote wala jéem a avancer ay élections loolu suñu yoon nekku si ñun bëgguñu loolu ñun li ñu bëgg mooy baajo que le droit soit di yëg nañu problème bi nga am sa njaboot yëg nañu rakku jabari saagaag rek yëg nañu problème yëg nañu problème mu familial yëg nañu lépp loo xam ne sénégalais yaa ngi koy wax yëg nañu lépp on de au courant de tout ci ginnaaw buntu yi tamit boo leen tëjoo lépp lu fay xew yëg nañ ko waaye dañu bëgg nga xam ne message la bu ñu lay jàllal pour nga dégg ko bëgguñu élection yu ñu puus xalaatuñu ko puusuñu paasuñu imagine leen mille cinq cent personnes ñoo toog ci kaso bi di xaar ay élection mille cinq cent imagine leen presque deux cent man naa ne deux cent ndax li dee ci sénégalais deux mille n'est-ce pas ci géej géeg ci yoon yeeg fépp li ci sénégalais presque ñaari junni sénégalais la yuy xaar élection donc on n'a pas droit à l'erreur xaaruñu puusuñu paasuñu nee nañu si le droit est dit ñoom wax nañu ko le droit est dit ubbi nañu ay kayit mooy Ousmane Sonko nekk na candidat coow li jeex na donc ñoom xam nañu loolu même Bazoum basum ci boppam Bazoum bandi ci boppam nanguwul négociation Macky Sall parce que Bazoum ci boppam dafa ragal moom ci moom li mu bëgg basum ñu defal ko mooy ñu éliminer ko Ousmane Sonko éliminer ko Diomaye éliminer ko ti Tidiane maanaam moom dafa bëgg a bëre waaye dafa bëgg dem sëgg ci làmb ji rek du am kenn ku muy jàppanteel ngem te loolu du am loolu du am donte man gëmuma man musuma gëm Karim Wade xam ngeen ma man musuma gëm wala ànd ak Karim Wade waaye kan mooy attaqué tout le monde fi mu toll nii Bazoum Bazoum mooy attaqué Karim Bazoum mooy attaqué Sonko Bazoum mooy attaqué lii Bazoum mooy attaqué lale ñépp Bazoum moo leen di attaqué pour lan parce que Bazoum nee na moom dafa bëgg a dem làmb bëre waaye du ànd ak kenn ba ci mbirum Antoine Diome ñëw na ci wax ji parce que boo leen fàttali ko conseil des ministres mercredi bii la waroon am waaye conseil des ministres bi dañ ko puus ndax lan ndax ñàkk déggoo seen biir parce que Antoine jom ba ko Macky Sall di dàq daf ko bëggoon raje carrément conseiller la ko bëggoon def pale mu dem sukki ci sëriñ si di jooy lu ne mu dugg ci ba ñu def ko ministre des pétrole parce que ministre des pétrole fi mu ne nii ci Sénégal moo gën a ñàkk ay koom-koom donte pétrole am na Sénégal mais ministre des pétrole amul benn koom-koom donc Antoine jom dañ ko fa teg rek en mu xaar toroxalam ndax sénégalais yi kat du ñu fàtte ñun dañu jooy dañu tëdd ay guddi yoo xam ne nelawuñu di jooy mu am ay parents yuy jooy guddi gi yépp am ay doomu jaambur yu nekk ci biir kaso bi il n'en est pas question ñuy xalaat ay pousse ay élection wala paas élection yi incha allahu rabbi le 25 février dinañ ko tëgg bëgg bëre bëre bañ bëre bëre ku mën sa morom daan ñun ragalu bëre ñun bu leen neexee indi leen Sénégal gi yëpp ngeen def leen mbër waaw li tax ñu def vidéo bi ci guddi gi nag résultat yi man na génn presque suba am na ñoo xam ne nee nañu ndeysaan résultat yi man na sax génn suba ci ajjuma ji waxatuma la ak samedi moom samedi moom du oo la pour ñoom donc dama ne bëgg bëre bëre bañ bëre bëre Ousmane Sonko notre président et notre candidat ñun dañu ne que le droit soit dit kenn ñun amuñu dara loo xam ne la ñaan nañ leen ko dañ leen ne que le droit soit dit yóbbu ngeen seen saagakat yi ci télé yi ñu saagal leen yóbbu seen fenkat yi ci fen yi ñu fenal leen dama ne que le droit soit ma yegg ma tëjee ko fi nag doomu aadama du rëy ndax doomu aadama njuum jombul jàmm Pape Moussa Sow Pape Moussa Sow avec toutes les informations que j'ai reçues avec les amis suñuy amdi di jàmm suñuy xarit suñuy àndandoon nee nañu ma Pape Moussa Sow nekkatul ci benn njuuj njaaj mi ngi ci liggéey bi mu bi ko war Pape Moussa Sow pour mu leer Pape Moussa mi ngi ci liggéey bi ko war mi ngi wax ci dëgg mi ngi dox ci dëgg nekkatul ci benn layam-layami ak kenn donc loolu tamit dama je je me à l'éclaircir ndax doomu aadama laa te vraiment am na loo xam ne mere woon naa ko ko torop waaye Pape Moussa soow nee nañu mi ngi liggéey nekkul ci benn waxantu mi ngi def li ko war mi ngi wax ci droit donc Pape Moussa bu fekkee am na lépp loo xam ne def nañ la ko rek ci fan yi nga xam ne vraiment dara dëmbul ci Sénégal ñu la koy ñaan ci njéggal ndax man moom comme ni ma leen wax bu ñu tooñee noonu publiquement dañuy ñëw ci jéggalu Pape Moussa Sow teg ko ci yoon ku ko teg ci yoon rek di nga am suñu respect di nga am suñu suñu suñu honneur waaye ñun layam layame layam layamee wuñu Sénégal négocier wuñu Sénégal képp ku jog te yaakaar ne yàq Sénégal moo la tax a jóg xamal ne di nga ko jëflanteeg ñun suñu frère Pape Sané tous nos pensées vont envers toi et ta famille foofu nga toog du sa place sa place c'est sur le plateau de Walfadjri Macky Sall na comme tiit na Macky Sall comme tiit na xamatul fu muy teg tànkam moom nee na de fi mu ne nii jaaxle na lool dina fexe lépp lu mu man pour bëre bu mu am Sénégal bëre nag dana am du yéen a commencé ay lamb teggi ngeen ay lamb waaye bi yoon lamb intercontinental bi mooy am mooy élection présidentielle deux mille vingt cinq voilà teggkatu lamb bu ma ñemewul lamb ci yéen rek laa ko gisee teggkatu làmb bu ñemewul làmb ci yan képp laa ko gisee te incha allahu rabbi les sénégalais on appelé à tout refus d'élection pour ngeen ngeen moytu ko moytu leen tout refus d'élection bugguñu ku ñu fi puusal ay élection élection yi puusuñu paasuñu nañu dem élection ku man sa morom daan waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu